ñu tàmbaliwoon di waxtaanee ci koor njëriñ bi mu am solo bi mu am ci jullit ñi waxtaanee li nga xam ne moom la alquran waxoon tuddoon mooy ngi am pour ñu amee ci taqwallahi tabaraka wa taala nañ ko lan mooy taqwa njëriñ bi ci am ak lan la ci alquran wax yooyu yëpp andi woon nañ ko waaye tey lu ñu dikk ak yéen mooy lan mooy koor lan mooy koor ci langu arab ak lan mooy koor ci jëfandikoo ñi nga xam ne mooy borom xam-xamu fiq yi fuqaaw yi naka lañ gisee koor ñi nga xam ne mooy ulama luga mooy ñi nga xam ne ci wàllu langue arab ci la ñu naka lañ déggee li nga xam ne mooy koor koor ci ñi nga xam ne mooy ulama luga mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy xamle ci arab mooy langue ci arab ñoom lan lañ xam ne mooy koor ñi ne koor mooy al imsaakul mutlaq ani shay mooy nga noppi ci mbir te loolu buñ demee ci alquran dañ ko fa fekk lu mel ni qissa sayyidatuna Maryama mi nga xam ne mooy ndeyu Isa euh, ba nga xamee ne li xew xew na duñ jaar ci qissa bi yëpp dafay jël suñ temps parce que lu ñu mecc ci temps bariwul waaye bu ñu see bu ci alquran danañ fekk yàlla di nett li mooy jaar jaaru ni nga xamee noonu la yàlla amalee yent yàlla Isa alayhi salaam yàlla ni mu amalee Isa noonu la amalee comme ni amalee yent yàlla Adama. inna masala isa inda allahi ka masali aadama yàlla nee na exemple bi ma leen jox ci li ma amalee isa noonu laa ko amalee ci yonte yàlla aadama xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun fa yakun isa yaayam dafa génnoon muy sayyidatuna mariam ba mu génnee am na ñu ne dafa doon gis li nga xam ne mooy baax ba baaxam jeexee mu dem di léegi sango farata fa mu doon sangoo farata luy xew-xew comme ni ko jibril ñëwee comme ni ko alxuraan nettalee du ci jaar da yàgg mu daal di ëmb daal di imbi ci saasi fi mu fi mu ëmbee rek foofu la imbee ba mu imbee daal di tiit nag ba mu tiitee daal ne yàlla te ni kuntu nesiyan mansiyya elantakoon ma nekk loo xam ne dañ may fàtte parce que lu tax am na ñu ne ragal na su ñëwee indi ki nga xam ne mooy doom ji gars yi mën nañ ko xas na ko yow dangaa njaaloon nangam ak nangam waaye am na benn góor yàlla mën a déedéet ki nga xam ne moom mooy euh, Sayyidatuna Maryam du ne dafay tiit ni nga ko war a xas parce que Seydina Maryam siddiqa la mooy nit ku dëggu la nit nag bu dëggoo nekk ci tollu bi yàlla nekk ci digal yàlla du tiit ragal ku ko yedd kooku dañuy wax laa yaxaafu fi koo xam ne siddiq nga laa yaxaafu fi laa i law mate laa im la ñu ne li mu doon tiit mooy la yàlla wax ci surtout yàlla wax ne wa iz qaala laahu yaa Iisa bna Maryam a anta qulta linnaasi wa أأنت قلت للناس taxisuuni wa ummiya ilaahayni min dunillah dafay ragal bis bi nga xam ne yàlla dafay taaj Moussa na ko yow Moussa yow yaa wax nit ñi nañ la jàppee yow ak sa yaay ngeen nekk ay yàlla waaye Moussa daal di tontu maa yakun li an aqulu maa laysa li bi ilm mu ne yelut ci man may wax loo xam ne aw ma ci xam-xam in kuntu qultuhu faqad alimte su ma ko waxee yow xam nga ko taalamu maa fi nafsi wala aalamu maa fi nafsik innaka anta allaamu lghuyuub yaa xam li nekk ci man waaye man xamul nekk ci yow yow yaa xam li nëbb kon ay eh, Sayyidatuna Maryam li mu doon tiit mooy bis boobu lu doon tiit bis ñëw ñu jël doom def ko yàlla yàlla taaj ko ci kanamu mm, mbooloo mi keroog bés penc di ko laaj lu mel noonu kon kon li tax mu doon tiit kon loolu la ba loolu amee nag ba mu ëmbee xale bi daal di ko indi ba muy dem amutoon li mu nekk mais yàlla nee na ko woon aussi bi gis mu ne daf dana ko yëngalal garab gi boo ko yëngalee tandama dana wacc ndox dana genn nga lek ba Sayyidatuna maryam defé lolu mu daldi lek nan naan nak imatarin min al minal ahadi mu ne bashar fa qul inni nadabtu lirahmani sawma dana ko mu dal dana ko wa kuli washrabi wa qarri ayna lekkal nga nan te na nga dalal sa xel fa minal minal ahadi minal bashari ahadan fa qul inni nadabtu lirahmani sawma su fekke da nga dem ba gis kenn nar la laaj ci loo xam ne dafa jëm ci biiru xale bi na ko man dama nisiroon na du ma wax ak kenn damay jàpp suma njàmbur kon baatab saw mu la andi kon baatab saw mu la andi mooy nisir naa ne du wax ak kenn te loolu ci la continuer ba mu demee ba indi xale bi ba gis mbokkam mi gars yi dañ na ko a ah, yaa uxta Haaruna maa kaana abuki imra asawin yow sa papa nekkutoon góoru njaalokat wa maa kaanat ummuki ummuki baxiya sa yaay nekkutoon jigéen ju caaxaan kon nak nga mën andi xalé bo xamanteni xamuy kuy bàyyi xamuñ xamuy kuy yaayam waye nak lam waxon lam nekkon bële ci la nekk moy dafa japp baña wax ak ñom fa asharat ilayhi dal di joxon ci xalé bi joxon joxon xalé bi ne waxal waxal wax ak leen ak xalé bi ba ngeen wax ak man gaay nak kay fu kay fa kay fu nu kallim man kana fil mahdi sabiya nak lañ wax xalé bo xamne xam ne beesu la xale bi dal di tontu muy Isa bokku na ci ñent ñi nga xamne ne wax nañ bañ nekk xalé Isa ci la bokku kon ñuy wax ci xale Insa la ak juré ak ki nga xam ne moo doon setal juré ji ak ki nga xam ne moo doon setal yonte yàlla Yuusuf ba koy Zalixa di sàkku ak ki nga xam ne moom mooy jigéen bu doon euh, peñe doomu Firawna bi bañ ko waree lakk doomam ji wax na kon ñeenti ñooñu ñooy wax yonte yàlla Insa ci la bokk yonte yàlla Insa daal di wax ne inni abdullah atani alkitab wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarak aynama kuntu wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayyan kon loolu la wax waaye bu ñu demee ba tey kon loolu mooy koor mooy yonent yàlla mooy sayyidatuna Maryam ba mu ñëwee dafa wax ne inni nazartu li rahmaani sawma man kat damaa mbébétoon damaa nise sama borom ne du ma wax ak kenn damay jàpp suma ñaamtu waaye bu ñu demee ci loolu mooy koor ci langue arab waaye bu ñu demee ci jëfandikoo borom xam-xam fiq yi ñoom lu ñu déggee koor ñoom dañoo wax ne imsaaku anil muftiraati yowman kaamilan min tuluuci alfajri ila gurubi shamsi ñoom dañ ne mooy nga bàyyi lépp loo xam ne day waral nit di yàq day waral luy yàq koor moo xam bànneexu biir la bànneexu pëy la yooyu yëpp nit ki war na ko bàyyi lu ko daggee bu fajar xare ba fuy fajar di sowe yooyu yëpp nit war na ko bàyyi kon te loolu yëpp boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ku ñuy wax Abu Hanifa dëpp dëppoo na ci Imam Malik dëppoo na ci Shafi'i dëppoo na ci Hanbal dëppoo na ci mais imaamu Shaafi ak imaamu Malik ñoom dañ cee yokk ne bokk na ci il faut nit ki yéene ci boole ci yéene mooy il faut nga fanaanoo yéene koor gi kon ñoo ñëpp ci lañ dëppoo kon nag koor fi bi dalee mooy bu waxtu bu fajar xare ba bi jant di soye ñu tontuwaale benn laaj boo xam ne laajoon nañ ko jëm ci wàllu xëdd ku ko yonent Yàlla Muhammad dafa wax ne tasaxaru fa inna soxora fii baraka na ngeen xëdd parce que xëdd barke ci nekk am ku ñu laaj na dafa yeewu fekk ñuy salaatu ndax mun na xëdd wala déet alquran dafa wax ne kuloo washrabu xataa yatabayyana lakum alxaytul abyadu min alxaytil aswadi min alfajri na nangeen lekk ba ba mën a xàmmee wëñ wëñ gu weex ci wëñ gu ñuul am nañu wax loolu moo tax saa mu muy njëkkee dañ daa jël wëñ teg seen tànk yi di lekk bu ñu demee ba mën koo ràññee rek bàyyi mais boroom xam-xam yi liñ ci nam mooy bu ñu demee ba gis ne fajar gi mu ngi dugg si guddi gaa ngi jeex loolu loolu la ci alxuraan nam waaye ki nga xam ne dafa jóg fajar fekk ne ñi ngi salaatu xadugut su boobaa yente bi nee na nit su fekkente ne dafa jóg di lekk xëdd ñuy salaatu na nga na nga na nga continuer waaye koo xam ne dafa jóg ba pare fekk ñuy xëdd ba pare nag ñi salaatu ba pare luy atteem dañuy day day seet xañ na ki doon salaatu mën na jum ci nodd gi nodd ci heure boo xam ne du heure bi war a nodd waaye su fekkee da ngaa réglé sa montre ne heure bii kat ci lañ war a salaatu nga eew gis ne heure boobu jotagut mais salaatu nañ yow mën ngaa xëdd parce que kuy na du mën na juum jamono jii lépp dañ ko def defal nañ ko ay heure ki nga xam ne mooy léegi presque boo demee heure bu nekk wax nañ ne heure bi lañ war a salaatu yow boo ko réglé dix minutes avant loolu boo yeewoo fekk salaatu nañ ko su boobaa mën nga xëdd waaye boo tardé nag moom ba heure bi nga xam ne ci lañ ko fixé nga mu passé boo yeewoo war xëdd boo xëddoo ama koor loolu lañ ci tontu. kon ñu yemale fofu waxtaan bi ba suba insha allah ñu dugg ci yéen koor ñaata xaaj la incha allah wa ma zalik allah bi aziz wa salam alaykum